bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokk yi seen mbokk Adama salaam niñ ko baaxoo def topp mborum Seydina Assane Salam ci képp ku mas a dajeek moom tey dañu ñëw fii ci tubaatul Toul seet si ku Ngom di woon comme daan jataay bi ànd ak sama wëllër sëriñ ak sëriñ Abdoul Ahad Diouf jii di jeudi le 14 avril 2022 ñëw fii ci Touba Toul seet Baye di ko laaj ci digganteem ak sëriñ bi ak lim ci xam. ngir ñu mën koo jariñoo bismillah moom mm. fii dafa am foo xam ne lañu xamee mm-hmm. mm-hmm. yooye jamono mm. moom boroom leer si lañu ko doon wax waaw ndax bu uh, aw dëram la yoroon mm, der uh, ah. boo xamee ne uh, fu mu ne bu guddee chasse gi fanaan dem lal fa deram fanaan fa hmm. mu jaaxal nit ñi lool hmm. ñu naa ko boroom der si hmm. noo ngi nekk eh, foofu di fi toj ci fi ñu jaare kon ak fi ñu jaar booba duma mag noonu mu ñëw asamaan set eh, eh, na yi ñu foofu mu ñëw fekk nu fa nenu dee leen ah, eh, fekk lu fa ne may leen ma meew ñu may ko meew mm-hmm. mu di ma xool ba yàgg mu ne ma boo demee mm-hmm. sa yaay mm-hmm. na la saraxel laaxu suba wala soow ma ne ko waaw ma ñëw wax ko sama yaay mu tiit ndax boobu sëg yu mu dem lu fa nekk xam na ko lu koy wax armel yi Euh, sama yaay tiit dem fa wax laaj mu ne loolu rek la ñu ma wax loo nu toog noor ba nu duggee nawet bi mu ñëw foofu fi ci la nuy béy foofu sama ëllëg yàqu ma dem fa teg di ko ko defarloo mu daal di ñëw ba mu ñëw muy si sali dox boobu mbaari teg yi dañu koy def mu xadu ba am comme ab néeg du tawte mu ne du ko ne baraas mbaar mi fekk ma fi hmm. ni jak xool ma mel ni dafa tiit ni ma waaw yow hmm. yow mii deexoo ma ne ko déedéet maa ngi mu ne <laughs> yow yaa ngi dun deexoo ma ne ko maa ngi nii hmm. mu ne xanaa ñi nga bokkal am na ci ñu dee ma ne ñaar dee nañ fi ñu ne ñoo jot yaa waroon a dee asalaamaaleykum Ngongo. waaleykum salaam. baax a baax. salaam saa salaam la ngom ngom ngom mu ma yaa waroon na de. ma ne ñaar de na ci mu ma. yaa waroon na de. ba mu fa bawoo. nag boobu mu ngi xombol. mu dem xombol. demee eh, xombol ba ca noor ba nag hmm. mu daal di ñëw di laajte ba ñëw fi nekk sama yaay fekk ma fa nag jàpp ma ci loxo lu bokk toog hmm. ñuy waxtaan ba mu jóg ne ay can fu muy demati nag nooy ànd hmm. saa bu bawoo xombol it amul fenn fu muy dugg lu dul ci nekk sama yaay bu ñëwee saa bu jógee nu nu mu jiitu ma topp ci moom nu di bawoo fi dem caacaw gale mm-hmm. wor ko nu bawoo fa ñëw caacaw gi ci suuf wor ko di delsi ci kër gi boobu kër gaa mm-hmm. bi nu ñëwee bi la nga segi caacaw yooyu mm-hmm. mu ne ma waw am na góor gu ñu doon wax diw xamoon nga ko ma ne ko dégg naa turam waaye xaw ma ko ñu eh, eh, eh, mu ne ma ne ko dégg naa turam waaye xaw ma mu ne ma ah, kooku lay mu nga sawara mm-hmm. ma ne ko ah mu ne waaw ñu dox tuuti mu ne ma xam nga li ko yóbbu sawara ma ni ko déedéet mm-hmm. mu ne daa am ñaar ñu bogante woon mm-hmm. mu yàq seen diggante ba tas ngoro ba loolaa ko yóbbu sawara falaa ragale loolu ba fii mu ne mu ne ma samaam jalan ma ne ko waaw mu ne moom day mu nga ajana bàyyi sama baay xam nga la ko yóbbu àjjana ma ne ko déedéet mu ne dafa amoon xaritu pol mm. mu doonoon xaritam mm. mu nuyu si woon samaam samaam reyal kow béy mm. kooka de koo jëkkal gi dee ba samaam ñëwee mu samaam fekk ko fa kooka ko xitli yóbbu ko àjjana ma ne kooka moo ko xitli yóbbu ko àjjana ba nga gisee mu fekk nu foofe fanu nu xamante am fa nekk si mag ci man booba suñu mag lañu fa nekkal mu ne ma diw diw dey du gaaw a dem ajana ma ne ko ah mu ne waaw waaw xam nga ni mu mel ma nekkoo ko déedéet mu ne mu ngi mel ni xolu gi tax boo xoli tabal ko cim ndox du gaaw a dig kooku du gaaw a dem àjjana la tax xol baa baaxut ah, noonu la mel xol baa baaxut waaw moo tax du yomba dem àjjana xam nga ku xam xolu gi tax mos koo xoli gis nga ni mu woyofe boo ko defee ci ndox ci kaw lay nekk rek balaa seey dina jafe xol bee baaxul xol bee baaxul mm. am ci jamono yooyu euh, loola sax ñu romb ay sëg ñu am tax góor googu daal sonn na lool mu gis ñi fi des ni ñu bége waaye moom daal mu sonn lool mu ne ko waaw yaw lii lu la ko lu mm. mu ne ah, man ña ma nekkal dañu ma toppatoo wut sakkaluñu ma sarax saraxeeluñu ma defuñu ma dara ñu ma bàyyi nii rek hmm. ba ñu leen ko waxe hmm. ñooña soog a dem def sarax hmm. ba ñu cabre dañu fa mu jaar fa fekk mu bëgg lool mu ne ko ah waaw yow ni moo la fekkoon ak ni nga mel mu ne ah, yow de xam naa ne fa ma nekkoon la ma fa jële nga wax fi mu ne day wax dëgg sant naa bu baax a baax a baax a baax ñii lañu ca bawoo ba mu demee Makka ba muy dem Makka ñëw na fii ba taguma hmm. ba mu wéyee mu del si fi hmm. yàlla dogal mu jëm fa marché ba ñu daje mu mm, fëgg mu yàkkamti ma ne ko ah waaw yow géej gi naa laa gis mu ne ma yow may dem maka tagu si la may ma ñëw siyaar si woo ma ma ne ko wax nga dégg de wala day nii ma ne ko ko nan dem kër ga mu ne daa am fu ma soxla fii ma ne ko kon nu dem bu ñu deppee dem kër ga mu ne ma Euh, damay xaw a yàkkamti waaye bu ma fi delsee rek Chakira ga laa jëm si hmm. daa am foofu fi gaaraasu oto yi koo xam ne moom rek a ko tax a jóg ak yërëmande hmm. ndax mun ne ndax moom day tux tux moo xam ne su ko bayiwul hmm. bu deexee sawara la jëm ca moom laa jëm ba mu demee wax ak moom daldi woñeku won ko defé ñu lefin be keewog nak ba muy dem a dem njaare njaareem toloog ma jëm mbàkke nu daje ci auto bi nu nuyo mu ne ma ah waaw yow légui day am nga soxna ma ne ko waaw am naa soxna mu ne ah moom day daa tolug diggante fa mu ne ma ne ko waaw waaw mu ne ma góor lay doon góor lay doon nanga nga ma ko tudde kon dina dund mooy asan mi ñu mm. ne góor la ngi doon mm. na ma ko tudde mm. kon dina dund waaye eh, moom moomu moom moomu kenn xamul xam naa am na ñoo xam ne war naa leen ngir moom sunu diggante waaye moom ñëpp la jaaxal moom li nga xam ne mboolem fi jaar hmm. lépp moom hmm. mënuma ko wax am na bari hmm. ñu xam ne lu ñu bindoon la sax duñ ko lefin lii daal moom foofu daal jaar nañu fi li ci des yëpp dafa yàgg-yàgg boobu sax fàtte naa yi mu ma wax ak ak waaye saa bu mosee ñëw amul fen fu muy dug néeg sama yaay saa joge ne ma ay sanooy ànd di waxtaan fu wor ñu waxtaan be ay te mot ñu lijjanti ko mu delu xombal ah si Assane moo nekk nii ah yow la ko tuddee ah est-ce que waaw am na itam xaw ma sama baay wax na loolu xaw ma am na ku ñuy wax Assane Sarr fii jarbaatu sama baay mii la mm. euh, daa ñëw ci ci ci baayu Assane mm. baay Demba Sarr mm. ko sa yaay diw dene ana diw mer ba nu mu tudd baay yaay baay Demba waaw yaay daa ñëw ne ko sa yaay mu ne waaw mu ne ko mu ngi alaaxira mm-hmm. demul safara mm-hmm. waaye demul ajana mu ngi taxawaalu ci naaj mm-hmm. mu ne ko mu ne ko xam nga li ko def mu ne waaw mu ne ko dafa yorunu béy béy war ruur doomi baayam mu ne ko baal ma mu ne ko baal naa la te baal ga yëgut ci xolam looloo ko galankoor mu ne ko dangay jël euh, cinquante kilo dugub nga def ko ay mburu yi ñuy def ci kii bi nga saraxel ko ko Baye Demba Sarr ne ko duma ma joxe cinquante kilos barigo laay def daa di wol barigo dugub def koy mburu saraxeel ko ko sëñ Alassane Salaam jaaraat fa ne ko yegg na ca moom mu nga ajana sëñ Alassane Salaam def na loolu fii Assane Sarr a ngi Assane Sarr ci boppam def ma koy wax ba tey jii wallahi wax na ko loolu ñu waxtaane ko be be be noonu loolu mu la ko wax loolu li wax ne cee bari lool euh, sax màggee yu ci bari lool euh, fàtte naa ko. fi mu ne nii yaa ngi ñaari at. Hmm. war ngaa toll ci ñaari at nii. ak. Hmm. Hmm. at moo tee ma am téeméeri at. kon 94 ans waaw moom ñeent wàññi atam mais li mu def ci biir sax ndax moom mille dafa def ci ay atam trente loolu noonu de noonu la dem waaye tey loolu ndimalal yàlla la rek waaye téeméeri at yu manqué juróom-benn te tey lu gune yi mën daanaka mën naa ko dama koy <laughs> toog ba sab set nga jàkkaarloo ko ab setam loolu bariwul a am ah waaye lii moom set na sama xol lool moom day eh, eh, xam naa ne baax na lool njël mm. na sunu borom def ngeen yàgg fi lool lool ngeen yàgg fi lool bu fekkonte ne mm, danoo bokk benn dëkk bi mm. ëpp kon di nga xam ci man lu bare bare yow daal ndax sa ni mu ma defoon te booba may gune mag ñi nekk fi waaye jotewu ci kenn dara mm-hmm. man rekk lu muy waxit man la koy wax mm-hmm. lu xew fii yëpp yii muy wax ak na mm-hmm. Eh, xam naa ne li ko yàlla mayoon mm, mayu ko yu bari suñu borom tabaraka wa taala dafa amee ay secret jaam bu ko yéene jox la ko te kenn mënu dara te aju ko ci lenn lu dul ci coobareem yàlla ñu mu sàkk def leen yonent ba leen di def yonent jaamoo buñ ko defale buñ ko dara ñi mu def ay xajjam noonu ñi mu def ay yéefara ci seytaane tooñe guñ woon defal guñ woon dara defa guñ woon dara ba mu leen koy def kon suñu borom ci coobareem lay def bu ma xamul dara ne kenn xamu ko réer naa bu ma tëlee dara ne kenn mënu ko réer bu ma amul dara ne ken xamu ko réer naa képp koo xam ne yaa ngi wax ne kenn mënalul ken dara wax nga lu réer waaye nag da nga ko mën a xam ci bis boo xam ne xam nga dootu jëriñ dara bu keroogee xam nga dootu jëriñ dara